chute. comme le ministre l'a dit dina am chute c'est-à-dire que chute bi du question mille milliards Covid 19 bi kese mais sur tous les autres actes qui ont été posés de prédation financière nga xam ne am c'est même criminel ci wàllu man je prends sur le plan de la santé demal ci yenn structure de santé yi benn doo fa fekk anesthésiste wala benn nga fay fekk nga dem ci urgence hôpital hôpital boo dugg fii xanaa yu mag a mag yi mais nga dem nga laaj ana urgentiste bi ñu jox la ñu won la benn étudiant buy doog bu nekk fële pareegul sax ma ngay jàng ñu ñëw teg ko fa ci guddi yenn heures yi nga dem nekk ci urgence j'ai donné un exemple y a pas longtemps koo xam ne vingt deux heures auto sapeur pompier moo la fa yóbbu ca urgence ba vingt deux heures bu trois heures du matin ñu lay romb gauche droite booba temps ñu ne la am na ñoo xamee ni nee ñu xaw ma nan lañ koy waxee ci wolof pour ne pas être euh, truc euh, wan nañu mille milliards wala ñu luubal ko nu mu leen neexee après ñu bàyyi noonu pour moi c'est criminel ñu dénk la loo xam ne mu ngi jëm ci lan ci santé nit ñi ci dundu nit ñi ci période boo xamee ni le monde ku ci nekk yaa ngi xool nan laay jàppalee man sama askan pour mu génn ci yaa ngi ceeb sànq Ablaye mais ci période boobu nañ ne ni ay Thaïlande Thaïlande ak yooyu dañ ne ñun suñ ceeb génneetuñ ko joxeetuñ ko parce que dañu am ay ay dañu am ay réserve yoo xamee ni suñu askan lañ koy dencal pour bu ñu soxlaa ndax xamuñu kañ lañuy jeexal euh, mbirum Covid bi na moment ñu ne sax garaaw mën nañu libérer lu toll ak deux cent trente mille tonnes ci diggante réewum Sénégal ak gambi xëy ni Gambie rek quatre vingt pour cent euh, seen li ñu lekk ci ceeb ñu ngi koy jéggaane bitim réew ñu ne la entre un cinq millions de tonnes Sénégal mu ngi koy importer ci wàllu ceeb yow période yooyu loolu yëpp di am ñu jox la xaalis ne la gérer ñu suñu suñu suñu askan. masque nga ñëw masque bu jar fukki dërëm même pas sax juróomi dërëm buñ ko subventionné nga jaayee benn masque quinze mille francs ba pare ne noonu nañ bàyyi noonu mu sedd il faut nécessairement dans cette reddition des comptes surtout lu soxal mbirum Covid 19 qu'on puisse éclairer la lanterne des Sénégalais gis nga dans les recommandations qu'il yi am na ñoo xam ne dañ leen ne ne leen woo ci kanam yoon. parce que le ministère de la justice ne peut faire que suivre les recommandations amoon ci yooyu les rapports ci biir recommandations yi am na yu ñu ne nañ ko rectifier wala dañ indi loi boo xam ne dañ koy defaraat parce que amul loi bu ko kii euh, même loi la bi euh, xaw ma habilitation bu ñu fi bu ñu fi taxoon ñu bëri ci lañ jaaree porox ndoolu def lu leen neex parce que di nga def rapidement ñu ne amul appel d'offre gré à gré am na nga dem woo mmh. Pape Makoura la yore mmh. nga ne ko léegi euh, teg naa marché bi yow yaay yaay sama fournisseur en masque wala en oxygène yuy jógee ci hôpital yuy dem hôpital te boutique la yore jaay euh, poudre felmate ak teeñ nga ne ko yaa may jaay masque surfacturé kooku dem wuti ku jaay hamburger nga ne ko yaay lijjanti ceeb bi indi ko ak yeneen ak yeneen mais ça il faut qu'on laa la lanterne des Sénégalais sur ça je pense et je suis convaincu que comme ministre wax na ko en conseil des ministres euh, devant le président de la République et le chef du gouvernement duñ ko y pas de coude yu ñuy teg kenn du teg coono si. par rapport ak euh, attentes peut-être par ak euh, xaalis boobu nga xam jëmoon na ci Covid 19 mu toll si mille milliards aujourd'hui lan lañ mën a xaar exactement ginnaaw bi nga xam ne ministre de la justice démb communiqué na ci ci conseil des ministres bi. waaw tout d'abord damay euh, remercier organ de contrôle yi def liggéey boobu muy liggéey bu mucc ayib. Euh, di jaajëfal surtout waa Cour des comptes di ci jiital seen président muy euh, Mamadou Faye donc bu ñu deful li woon liggéey boobu peut-être lu ci bari sénégalais yi duñ ko xam mais dama jàpp ne aussi dafa am loo xam ne dafa dafa dafa dafa doy dafa jéggi sax fu ko nit ñi di di xaar man je peux pas imaginer situation bi sénégalais yi toll woon monde bi yëpp toll fa ku ci nekk di tal sa bakkan ay nit di luubal alalu askan boo xam ne yaa ngi gis chaque jour wala ngay dégg ci télé ñu ngi dee chaque jour par dizaine par centaine voire même par milliers nga mën a jël alal bu toll noonu di ko denc te yow xamoo sax ndax situation bii ñu nekk nii. di nga ci génn. c'est extraordinaire man dama jàpp ne ñooñu non seulement waruñu leen tëj kese mais dañu leen war a yóbbu psychologue xool leen est-ce que wér nañ. ndax alal bu toll noonu boo mënee am xelu sàcc ko. di ko jëfandikoo yow sa njaboot ci situation yu man je pense que tu as un man dama gëm ne gouvernement bi dina ci dem jusqu'au bout ndax si criminel comme ni ko Birahim wax c'est extraordinaire il faut que ñoo ñëpp ñu traduire leen en justice ñu di justice teg ay daan seen kaw ndax li ñu def noonu tey jii balaa mu lay gën a metti nga dem ci hôpitaux yi fi nekk non seulement sa yaram dafay daw mais aussi da ngay dem ba dangay ngay am yërmande lool ci sénégalais yi ndax li tax mooy da ngay taxaw ci benn buntu hôpital ñu fekk la fa tàllal la benn ordonnance su cent francs ne la sama malaat mi ngi ci biir nee nañ ma buñ ko bu ma indiwul ordonnance bi duñu ko laal de notre côté ay sénégalais di jël ay milliards yoo xam ne mënoon na tabax hôpitaux mënoon na defaraat le plateau médical ñu jël ko denc ko ci ay compte bancaire wala ñu denc ko seen ay biir kër donc je pense que loolu war na nekk ci exigence yi nga xam ne gouvernement bi war na ci mën a taxaw te dama gëm ne def ci taxaw ndax le président Ousmane ko ba mu koy wax du tey ku fi luubal alalu askan wi di nga ko delloo loolu yaakaar naa ne ba mu koy wax du tey te ba muy wax ci aw corniche bi aussi il y a trois ou quatre ans ne képp ku fi tabax te jaaroo ko ci yoon danañ ko toj donc moom toujours mi ngi ci logique boobu donc dama bëgg sénégalais yi seen xel dal ni suñu alal moom ku ko sàccoon boo ko yóbboo bitim réew di nga ko andi boo ko dencoon sa biir kër aussi di nga ko génne te ñoo ñu dañ leen war a juger vraiment bu jaree tëj ñu tëj leen te dama ci yokk sax leneen man ah man dama gëm ne ki nga nekk ki nekkoon seen njiit muy la président Macky Sall il était au courant du tout ne serait-ce loolu mu wax naan dama jël sama conc teg ko ci ay dossier loolu kese dañ ko ci war a tëj ana dossier ak président di ko teg ci ay conc ku la tegloo ci ay conc dossier du pour ay conc dossier danga nga koy war a jox justice ñu def seen liggéey mais joxuñu la pour ngay teg ay conc ak ay ay ay ay genoux donc yëngal réew mi ñu war a gën a affiner ah, l'indépendance de la justice voilà pour que président bu mën a ñëw koo mhm. mën a doon tamit mais justice ba na am indépendance am boo xamee ni du xaar ñu ne ko euh, saisirul ci dossier nangam ñoo koy defal seen bopp. projet de Pastef te loolu moom incha allah. Mhm. justice dina am indépendance. Mhm. te lu fi waaye def nga bokk ci nguur yeeg nga bokk feneen a ci yam justice dina dal sa kaw. incha allah ay enquêteurs. moo mhm. def enquête ba pare nga ne da ngay jël dossier bu joxaat ko ay enquêteurs. Cour des ay enquêteurs la. enquête def def ci recommandation nga jëlaat dossier bi ne ne on a diw digg. o nañ daafi digga o nañ nangami digga on n'a pas besoin de ça. Mm-hmm. lu ñu soxla mooy enquêteurs yi pare nañ nee nañ ñii kat yoon wala leen o na leen yoon oo. Mm-hmm. ñii kat yoon wala leen oo ñu leeral wala leen ñii dañoo war a remboursé na leen yoon oo dañ leen bu mm-hmm. ab bu ab asamu jeex. waaw daaj yi seen yoon nekkul. waaw non oui ma. loolu moom. waaw je ma wax ko ci kaw. nañ bàyyi daaj yeeg secrétaire généraux yi. daaj bu defee. ministre bi nekk ci gannaaw waaye naan la non bi ñu turu ministre bi daaj bi lañ tudd. daaj yëpp non am ñu bàjjan am ñu bàjjan. loolu foog ñu bàyyi ko. li hmm. hmm. hmm. te dégguwu ci ak. Euh, euh, kii di euh, njiitam di tutelam. mënul nekk mais dans les rapports mais si on ne fait que suivre les rapports il y a eu quarante et quelques presque cinquante recommandations. ci mbir moom am na ci yoo xam ne dañu ne le ministre de la justice doit activer le le le procureur pour nangam pour diw ak diw parce que nangam. Mm-hmm. ba ci ay ministère ministère ñu ne lu ministère yoo xam ne seen yoon warul nekk sax ci Covid. ñu leen di tudd ci ay milliards. Mm-hmm. di ci tudd ay nit. di ci tudd ay organes ba ci suñu presse bii. Mm-hmm. di leen tuddal ci ay milliards mais ça on a tout lu su rapport yi. Mm-hmm. mais jusqu'à présent rien quand le ministre nous dit mm-hmm. ce sera fait exécuté euh, nañ ko exécuter rapidement d'accord ak waaw kay jërëjëf soxna Thialla jàngat bi ci war a def kay mooy ñu ko ci jëlloo moomutoon rek nga daal di koy delloo ndax mooy dëgg-dëgg wax ju wér ji nag wax dëgg yàlla Birahim bu nu dugg nag ci Covid bi rek dañu dem ci maire yi xool maire yi maire yi laa wax maire yi loolu beneen débat la 36 moo jot dafa sa jàng wax nga sa waaw waaw kaala mais beneen parce que 36 na waaw nañ xaar beneen jour la waaw non du am na solo mais dañ ko topp tey heure bi am na solo waaye damay damay jaar foofu waaw